Alhamdulillah daa iman abada alhamdulillah kasira alhamdulillah ala kulli xaalin ñu ngi sant yàlla sant bu amut àpp amut doy waaye di julli si yonent bi salaa sallam ak waa këram ak saxaabaam ak képp kam yaa ngi tudd sunna bi yomal qiyaama di ñaan yàlla yàlla boole si yàlla ñu jàmm indi ko fanaanoo ko yàlla muy jàmmal yàlla yàlla fay jàmm yokkal sutura kata ñi ci gi ci bi yàlla leen yàlla saaparal yàlla yàlla delloo seen sago waaye julliti juti àllaaxira yàlla yaram leen yàlla yaatal seen bàmmeel yàlla def seen bàmmeel mu nekk rootatu mir yàlla janna ndaw yàlla saamale aar leen la xale bu yaa yàlla war sagale xam-xam war sagale liggéey war sagale àndandoo lu baax jigéen la xale bu biha e ko ɗi allah banni hewale aduna hewale ahira safara mboko joni hafisi dara e mouhammad salah sallam de jangale kadi ma bobo yimɗo kadi ñëpp si besbu a juma mbokki jullete a ɗin ko wayi rek waxtuyi gaw nañ bés yi gaaw nañ week semaine yi gaaw nañ weer yi gaaw nañ kan lañ fi waxoon ajuma ba ñu ngi leen di waxaat ajuma mbokk jullite waxoon rek ne moom ndeysaan buy dem bay tëdd tëdd si lalam bay teg boppam si ngiginaay balaa moo yëg rek ne ko ëpp fajar jot na la akbar boo sot na mu demat dima dema balaa mu ne nii rek ñu ne ko ëpp guddi na waxtu tëdd jot na muy ay waxtu yu gaaw yoo xamee ne subhanallah kii yàlla may idraak maanaam gis-gis rek mooy mun a bàyyi xel si loolu ni waxtu yu gaawee ni bés yi gaawee ni weer yi gaawee kon nag ah, aajuma ngoog mbokku jullit yi yàlla subhanahu wa taala ñu koy sant mi ñu mayaat ñu fekkee ko ñu koy santa di ko gërëm di ko ñaan tamit mu ma ñu ko ñu ko aajuma yu bari bari bari bari waaye lu si jaamu yàlla ñu ko yàlla nangul waaye aajuma bi yàlla bu mu nekk suñu mujjanteeli aajuma allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim mbokku jullit yi ñu bari li ñoo julli si yonent bi salaa sallam ñu delluwaat suñu waxtaan bi nga xam ne yàlla subhanahu wa nga xam ne moo ñu saaka doomi aadama ak noo am am doole noo am am kàttan waxtu ngi ñëw sa doole boobu yëpp ay jeex jeex yàlla subhanahu wa taala di wax si yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yërmande yàlla subhanahu wa taala moo jiitu si jaam yi yàlla ne fa in kazabuuka fa qul rabbukum zu rahmatin wala yuridu ba'suhu an il qawmi mujrimin waaw parce que yonent bi aleyhi daan coono yëpp pour oo yéefar islaam bugal leen lu baax yërmande ndax xam na ne toppa yàlla jaamu yàlla moom donc moo la a sowe àdduna àllaxira yonent bi aleyhi salaatu wasalaam <clears throat> guddi ak bëccëg suba ak ngoon ci loolu la nekkoon waaye nag yéefar su yàlla xasee muur sa xol leer du mun a ñëw ba dugg fa waaye waxtu bu nekk rek lenay dugg sa xol mooy dem loo tax mbokk jullit ku kuy jaamu yàlla na nga seet li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam indi nga jaamoo ko yàlla loolu loolu mooy leer bi alquran ak sunnaam bi loolu nga xam ne sallam def nga sa kéemtalaay kàttan di leen oo si islaam di leen si baat si uh, baati tawxiid muy jaamu yàlla moom dong ñu dal da wéedi waaye da nga xam ne nag sa borom mooy borom yërmande allahu akbar yàlla subhanahu wa taala moo amee yërmande waaye nag gis nga seen yu bon yooyu yàlla subhanahu wa taala du ko bàyyee de du leen ko bàyyee mukk da leen ko aate bon lii mu ñëwoon aslu fil aqida mana cosaan si doomi aadama yëpp mooy pas-pas gom waaw pas-pas boo xam ne raxul dara ngom boo xam ne dara yàlla rek donc parce que doomi aadama nga xam anna kulli shay'in waqa aradahu llahu subhanahu wa taala lu am rek lu yàlla subhanahu wa taala nama mu am la waaw wa kullu shay'in subhanahu wa taala waqa te yàlla tamit lu mu bugga rek loolu mooy am ñun nag dañoo bugga yàlla bugga ndax banay am iradatullahi subhanahu wa taala yàlla li mu bugga rek mooy am nga xool xadis xadisatu ifk li xewoon si suñu yaay Aïcha loo tax tuuma ñaareel gor rek lañ koy defal gor waaye nag buñ la ko jiñee fii ba déwén te gisuñ ko si yow suñ la tuumalee fii déwén te gisuñ ko si yow xamal ne la ko tuuma dañ la ko jiñ rek waaye du dëgg pour wane ne léegi rek am na ay góor yoo xam ne nii dañoo wax si ñoom lu bon waaye fekk dara nekku ci dëgg <clears throat> kan gannaaw yonent bi salaa ki nga xam ne mooy soxnaam suñu yaay Aïcha nga xam ne salaa sallam mu ne Aïcha zawjati fil janna allahu akbar si yaay Aïcha yonent salaam gaaraan eh, na arjanaam ba si jigéen yi si la bokk ba mu ne mooy nekk soxnaam sa arjana zawjati yi kooku tuumal nañ ko muy xaadisatu nga xam ne histoire boobu ñëpp xam nañ ko waaw nga xam ne dañ tuumaloon si yaay Aïcha qaala taala إن الذين جاءوا بالإفق عزبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسبت من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم loo tax léegi-léeg la tuumalee rek ñooñu nga xam ne ñëwoon nañ pour indi lu ñaaw loolu bëgg ko teg suñ deri yaay ummul muminin ndeysaan benn naafexa gis su yaay Aïcha rek ne ko ah man de jàppewuma la ndey julliti mu ne ko a kañ wax nga dëgg parce que yow bokku la si julliti <laughs> su yaay Aïcha dafa amoon xam-xam xam-xam waaw kooku naafexa gis yéen yaay Aïcha ne man jàppewu ma la si comme ni la yaay ndey ndey julliti ah ah man jàppewu ma la ndey julliti mu ne ko ah kañ dëgg la dëgg nga wax parce que yow doo jullit nekkuloo mu'min gëmuloo yàlla soo gëmoon yàlla <laughs> di nga di nga eh, di nga xam ne man man la ñu ooyee umul muminin ah ndey julliti allahu akbar xoolal naka la naka la tontoo kooku rek mu ne ñu nga xam ñu ngi indi loolu waaye nag yàlla subhaanahu laa taala di ko ne laa tahsabu sharran lakum bal huwa xayr mu ne gis nga tuuma boobu nga xam ne moom la leen a tuumal ah, bu foog ne lu bon la si yéen waaye lu gën la si yéen xoolal léegi-léeg ñu tuumal góor góor wax si moom wax yu ñu foog ne eh kii yaxaa nañ dëram ndeketewoo loolu nag moo ko ekkati sa kaw ña ko buggutoon bugga ko ña ko ña ko ña ànd moom moom ak moom parce que xam ne kii dañ ko jaay doole dañ koy tuumal te liñ koy tuumal dara nekku ci dëgg bari lu moo xew loolu te suñ la tuumaalee loo xam ne defuloo ko rek wallahi mu rek yàlla moo la xeexal te dëgg dina ñëw yàlla mu ne bal huwa xayrun lakum xakañ tuumal boobu nga xam ne defuloo ko ñu ko teg sa sa der bi yàlla loolu moo gën si si yow waaw wala moo gën si yéen mu ne li kulli imri minhum maktasaba min al ism waaye nag ku nekk si ñoom ñoo ñu nga xam ne ñoo doon wax wax yu ñaaw jooju wala ñi tuumal li fekk li ñu tuumal yi du dëgg loolu seen baakaar bu liggéeyal seen boppa la isaan xam nga loo tax nit dinay tooñ boppam mooy ngay tuumal gor fekk li nga wax si moom dara nekku ci dégga boobu mooy ne yaa ngi defar sa baakaari boppa yaa ngi tooñ sa boppa zulmu nafs maa ngi tooñ sa boppa mu ne kooku nag moo yenu baakaaram waaye nag kooku yomal qiyaama yàlla mu ne mbugal bu metti mu ngoy xaar mbugal bu tar mu ngoy xaar bo nakoy kuy tuumalati doomi aadama si kaw suuf ci lo xam ne du dëgg mbokki yu rege li mo la xaar aaya bi yàlla subhanahu wa taala mu wala hum wala hu azabun alim wala hu azabun ali azim waaw mu ne kooku nag bàkkaar bu rëy mu ko xam mu ko xaar azabun azim bugal bu metti si kaw lan tuumal nit bon warna war na ku nekk si ñun muy war a enu bakar, boo xamee ne kër yomal kiyama du ko mun a layee war nañoo moytandiku loolu kon mbokk jullit yi bi alayhi salaatu wasalaam bu dee lañ kiram pour bu ko ñaawal dëri soxnaam suñu yaay Aïcha bon beneen góor buñ tuumalati rek muñal rek dëgg rek ay mujje waaw dëgg rek ay mujje ndik naafexa yooyu nga xam anu ne ñu àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu koy taskiram yàlla ñëw setal suñu yaay Aïcha bon góor buñ tuumalati rek boo muñu dellu ko si yàlla rek yàlla na la setal Yalla yàlla seetal suñ xol yi yàlla bukan def bokkan buggante suñ biir yàlla enewante lu baax yàlla subhanahu wa taala raxas suñ xol yi ñu buggante te yàlla tax yàlla ñu ko yàlla defal dig mbokk jullit yi bu rëy ah janaa moytu de mbugal boo xam ne tamit mbugal bu métti di xaar ki nga xam dara nekkul liggéeyam loolu nekk social media bi di tuumal nit ñi di wax nit ñi di teg si dër nit ñi lu ñaaw lu xam ne dara nekkul ci dëgg war kon yàlla ñu defal jàmm yàlla yàlla may hidaaya yàlla yàlla may njub yàlla defal rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab annar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب